وبعد نحييكم بالتحية الإسلامية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki àdduna mbokki lislaam yëpp kenn ku ne ñoo ngi ñoo ngi lay fekk fi nga toog jox la suñu loxo xol di la nuyu nuyu bu sell boobu xam ne ci yàlla la jógee yàlla ci sidna Muhammad mu jox ñu ko ñu jaam yi ñu koy jëriñoo muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah di ci jiital fa tabaraka allahu kilifa diine yi fa tabaraka allahu Sëriñ Babacar Sy Mansour xam général de Tijaan ñaan rek atala allahu amruhu wa aydahu nasara noonu la ñuy jiitalee Serigne Mountakha xalifa général des Mourides di ko ñaaral moom it yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla sàmm ko yàlla yàlla wattu ko noonu la xalifa yi ko suuf yëpp di leen ziyaara di leen baal wax di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala fa tabaraka allahu di nuyu waaye kilifa aada yi bàyyiwuñu ñu président Macky Sall ba ci suuf ñëpp muy le pouvoir muy l'opposant ñëpp ñoo ngi leen di leen ziar di leen a àq di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala rek yàlla boo ñu jégal di nuyu nag ñi safoo Salam Vision nag bàyyiwuñ ci kenn farakallahu di ko ànd ak ñun ci seen émission bu a boobu i Al-Hilm wa Taalim ànd ak ñun tamit ci jotaayu mag ñi waaye farakallahu tey nag ñu am mbégte dara fi ki nga xam ne moom mooy Hadj ñi xam ne ay rakam lañu ay soppeem lañu ay xaritam lañu. ku ci mel ne Mouhamadou wa tabarakallahu ñaanal nekk nag ñuy tagg Seydina Mouhamed waaye tuddee seen bopp fa tabarakallahu groupe sopp Hajj Malick ak njaboot Hajj Malick yëpp di rek yal na yàlla doon taxawu leen yal na yàlla dëgëral leen na yàlla sàmm leen bi jaahi Seydina wa sallam bi nga xam ne fa mu nekk ñi xam ne ñoo war a plateau spécial bi ñu fatabarakallahu def bandu annonce ko xaaja yaa ak groupe sopp Seydi Hadj Malick ak njabootam yëpp kon xaaja yaa bismillah يا لبلوبي عليك ردي صلى وسلم يا sala wa sala ya rabbana wa wa alayka rabbi sala wa sala la la la ya rabbana wa alayka rabbi ko fi garba sey Babacar Lo

mu daal di may neem na mel ni sunu Boroom Yàlla ki koy def def na ko xalifa ne dem ziyaare Allah la ilaha illallah bu doon de mel ni may ne ma mel ni xalifa waaw yàlla ki koy koy def def na ko xalifa na ndew siyaare mu ana soppe sëñ Babacar alhamdulillah ma sant yàlla waaw mi sant yoneen di sant seen ay di sant di sant Maodo moom mi ñu ki koy koy def def na ko xalifa na dem ziyaare mu fi gërëbët sëñ Babacar yow ma la xiyaame bu ñëpp teewee Allah ki maali taxaw

maa koy firi yomal xiyaam waaw waaw bu ñëpp teewee allah ji maa bi taxaw ca tawa tawa keroog ku tuub ci salu bay bay kenn du la lay bay la ci lay lay la la ku tonte ku mu nga mel ni bay waaw mu daa di may neex ma mel ni xalifa lay la la la ki koy waaw na ko xalifa dem ziyaare mu jàll ay ustaz jara gisuma ku gën a baax ba gën a yaru gisuma ku gën a tey sëriñ Bara tu seen gisuma ku gën a baax ba gën a yaru mbay gën a tey sëriñ Bara te Babacar rafet na ma taaru na tabe na man faguna xalifa. alhamdulilah oh, bu tontu tumun. woo nga mel ni baay ma. baabu taa di may neex ma mel ni xalifa. yàlla ki koy def. def na ko xalifa. nen ziyaare mu dal. a jalo ko ca kaw xamusu sala. waaw yoonu tiwa. yan fonkal dayak baay. Tijaan war na mel Tiwaawan Awsu Salaam yoonu Tiwaawan fonkal ndey ak baay te di leen màggal wàllu yu wuy dund ak yu dee bu ne bu Tijaan dund ko ziyaara bu doon de ku mu ne ma mel ni baay mbaa mu daa di may neex ma mel ni xalifa def def na ko xalifa ne dem ziyaare mu jàlle nooy tabarakallahu ahsanta akmalta mu mel ni fa tabarakallahu annonce bi mu demee nii xase yaa xol kon képp koo xam ne yaa ngi ci diaspora bi nekk fii ci Sénégal di ànd ak ñun ci Salam ngeen waajal rek le vingt cinq mars plateau spécial ñu ànd ko suñu rakk suñu xarit fa tabarakallahu di xaaja yaawoon ak groupe sopp Seydi Xaaj Malick waa këram mu mel ni fa tabarakallahu rek ñëpp ñoo ko déggandoo ñoo ngi koy defee fii nag fa tabarakallahu ci chaîne YouTube bu mag bii nekk ci banlieue bi mooy faral di ko wax di ko wax naan moom mooy chaîne YouTube bu mag bu nekk ci banlieue bi muy Salam Vision fa tabarakallahu fas yéene ibbil ñëpp buntam bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu kenn tabarakallahu ni ñu ko defee suñu maam Serigne Babacar Sy noonu la ñu ko defee suñu maam Serigne Saliou noonu la ñu ko defee suñu maam Cheikh Fadal noonu la ñu ko defee suñu maam Abdoul Ahad noonu la ñu ko defee suñu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh waaye noonu la ñu ko defee tamit suñu maam Alhaji Mansour Sy bal xaw mi borom ñaari kaala yi ak mboolem kilifa tabarakallahu waaye tabarakallahu di lay ñaan Aja kon ñu waajal rek ba mercredi incha allah rabbi muy le 25 mars waaye tabarakallahu bu ñu soyoon nag nga may ñu benn mandat rek doog a war a soppi nag ñu xaar bi fi nga xam ne mooy mooy Salam Vision. moo tax altine 25 mars 1957 midi pile ci la Serigne Babacar génn àdduna. ñu ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Maktoum borom rëlle ni dama toog sama saal ñu fekk ma fa ni ma sa baay Serigne Babacar Sy génn na àdduna mu ne leen jébbal leen ko na ma bala muy dem ñu sang Serigne Babacar dal di sang dal di jullee mag mu ñu ne jëlal Serigne Babacar def si biir baax mi soo ko xoolee soo rongoñ tuuru nga dellu gannaaw mag mi ñu ne jëlal si biir baax mi danga koy xool sa xol fees nga dellu gannaaw sëriñ Seex Tijaan Si Maktum ne leen ana Seyduna Muhammad ñu ne mi ngi ci suuf ana Seexuna Tijaani ñu ne mi ngi ci suuf ana Seydal Xaar Alaaji Maalik ñi ne mi ngi ci biir suuf mu ne góor gi tey ku ko def ci suuf suñ la laajee am foo ko teg waaye dugal leen ko waaye waaye oustaz Diarra li ci gën a yéeme Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nee na ba ñu dencee Serigne Babacar Sy ba noppi maa ngi ànd ak sama xarit sama cheikh Serigne Mansour ah borom daara yi ne maa ngi lëngante moom fu ñu dox bu ñu xoolee di jooy waaye li ci gën a yéeme Serigne Cheikh ne ba ñu delloo suñu biir saal dañoo toog ba ci yàgg maanaam borom daara ji ndax yaa ngi gis man li may gis sëñ Mansour naa ko man koy gis moo tax mu ne Serigne Babacar ngi ne toog Serigne Cheikh Tidiane ne Serigne Babacar il se repose mais il n'est pas mort. barakallahu ko xajiya ah. nan la bàyyi rek. waaw ñi nga xam a woo ci ñu war a jàkkaarloo ñu ci plateau spécial nga xam ne ñoo ko fas yéenee jagleel suñu maam boobu di Serigne Babacar Sy. waaw kay Jalle ñu bu baax yow di la ziyaara di la wàcce sa wàccuwaay am mbégte bu baax bi ba ko defee ñun tamit ñi ma àndal di sama Serigne Adlamine Ndiaye ak Serigne Ousmane Ndiaye nuyu télévision bi ñu dalal di Salam Vision. di nuyu soppeek xarit yeeg am di jàmm yëpp nuyu xalifa yi kilifa diine yi fi nekk yëpp kilifa aada yi comme ni nga ko waxee tabarakallahu di leen ko waaj loo le 25 mars incha allah ñu jàkkaarloo nag yéen si sëñ Babacar radiyallahu taala an ndax dañ daan faral di dégg ni mag ñi daan ko wax ki tax nga gën ki nga wartu woon a gën du sa morom sa sang la te sëñ Babacar defoon nañu loo xam ne tey macha allah fu ñu dem ñu naw ñu ngir barkee ma ngir ay déggal ma ngiram ngir cofeel gi ñu am ci moom tabaarakallahu ñu waajal ko defee 5 mars di si boo xarit yeeg soppe yeeg am di jaam yépp Salam Vision télé baal allah ñu ngeen ko déggandoo yéen ñëpp ngeen waajal bis boobu rek di suñu bisu maam Serigne Babacar Sy di ci woo soppeem yi xaritam yi tabaarakallahu ku ci mel ni tabaarakallahu soppeem boobu di soxna May Pouy bëgg Serigne Babacar lool ba ca ci moom. xam naa daa fexe nga jàkkaarloo xaajaya mu ci mel ni Faraaka Mbacke Yacine Naar mu ci mel ni Umpaañ Daba nekk ay soppi Serigne Babacar Sy waaye nañ bàyyi ba le 25 rek. incha allah waa Sénégal Tidiane bi yëpp. waaw di koy waajal waa Sénégal Tidiane incha allah nañ ko waaj bu baax a baax. ak seen xarit ak seen soppe incha allah. Ah, kon tabarakallah kon waa Sénégal Tidiane yi da ko dégg ndool noonu ak waa Thierno yëpp tabarakallah Touba Pikine bàyyi wu ñu kenn waa Muzdalifa waa Mutafina waa Mujahidina fu yaa am sopp rek ñu ngi lay xaar loolu le 25 mars fii ci plateau bi Salam Vision ngeen bàyyi ko xel ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.